noonu boo Boy amul lu muy moytu si combat boobu noonu waaw Tapha bu ñëwee combat bi jaral ko bakkanam boo Niang dafa war a tër boppam rendi ko waaw parce que boo Niang mooy xale Tapha Tine 14 ans de carrière rek dafa ma 16 ans comprendre nga magee na ci si bari boo Niang amul lu muy moytu foofu noonu waaw. bu ñu xeexee. tamit dara ragaluma ko si xeex ragaluma ko ci bari ñu bëri ne nañu Boy Niang dafa war a moytu jàpp ci ngemb jàpp ba pare di xeex jàppante jàpp ngemb da war a moytu hmm. ah ñun moom combat am lu ñu si ragal moom wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla suñu moral baax na naa yees nañ ko daanaka lu ñu waroon def yëpp def nañ ko waaw suñu borom moo des. li la lu la gënal ci combat bi combat bu gaaw wala bu yàgg. ndam. mais du gaaw wala bu ndam. ah bu jëree cons ñu cons bu jëree ñëw jàpp prib dip ñu prib dip ko. léegi yow bool mbooloo kan lañ léegi der bool bool bool am naa fa adversaire parce que gars yooyu noonu yëpp ñu fa nekk. ñi fa nekk ñëpp jox nañ ma leen ñu bañ. dafa bañ. dafa bañ jaatin am na combat suñu suñu suñu igri mbañik moo ko mujjee daan kalmandour dafa bañ mbay guy gi dafa bañ ngel jon dafa bañ kéwél dafa bañ. Euh, wulli de dafa bañ dafa leer dafa bañ limal. mais mais lan moo lan moo tax nga yaakaar ni ñoom loolu moo tax ñuy bañ. non lu nooy la ñuy wër te fii dara nooyul fii dañuy xeex dañuy bëre. lu nooy la ñuy wër wala dañ laa xeeb. non non mënuñu maa xeeb mënuñu maa xeeb xamante naa ñoom bu baax ñeneen ñi daje naax ñoom si mbopat bi defaral leen xam nañ na fii nooyul waaw. xamante na ak ñoom bu baax mais ñàkkul adversaire ba nga xamante ne bi moom nga teg sa bët tey boo sañoon ñu jox la avance am nga fanaan ak moom. man bañu ma kenn nekkoon réew mu yi mujjee daanu ki démb bëgg naa laay pétagore mu ngi fi di taamu rek amul combat li ma lay wax ni yëpp ay làmb la nañ ma leen jox marle na ñëw ñu bëree Alioune Seye numéro 2 bi topp paa yi di bëree ak ñoom di leen dóor ñuy gaañu na ñëw ñu bëree. Alioune Seye 2 mi dëgg escanté sos dóor ñuy gaañu xam nga na ñëw ñu bëree na ñëw jël booy ñu bëree ak ñoom Alioune moom làmb la waaw combat dàqu ko maak moom làmb la gars yi nañ ñëw ñu bëre ñu bàyyi li ñuy def am déet. non man pare naa combat buñ bëggee man bu avance taxawoon nii ñu dugal ñu si combat booy ñaar bëgg naa sax bëre premier combat. jeex dafa leer <laughs>